démb nag a teertu bu am solo la ñu a ki nga xam ne moom mooy soxna Ndaté Cissé gannaaw bi nga xam ne nag mu am ndax moom moom moo jël première ci concours international de récitation du Coran bi nga xam ne eh, dañ doon édition bi fële ca eh, Dubaï moom nag soxna Ndaté eh, Cissé mu nga bàyyeekoo woon fële ca Touba. mbir mu bees am na ci li nga xam ne moom mooy dossier François Mancabou mi nga xam ne mu ngi génne woon àdduna fële ci commission sociale bu hôpital principal nga xam ne nag moom mooy procureur de la république da cee ubbi am information judiciaire ndax boobu ba léegi daal euh, ci anam yi nga xam ne moom la deewee kon dafa leerul loolu nag tax kon ñu judiciaire jébbal ko juge d'instruction bu deuxième cabinet. mbirum Ousmane Sonko ak Adji Sarr itam am na lu bees nga xam ne nag mooy njiital Pastef li ñu ne suba ci alxames ji kii di doyen des juges woolu na ko pour édition dans le audition kon dans ci xóotal euh, ci boobule mbir ngir nag euh, ñu moytu ay yëngu-yëngu am ñi nga xam ne nag ñoom ñooy force de défense et de sécurité yi jël nañ seeni matuwaay xibaaru Afrique dañ koy tàmbaleeg Tchad foofu nag euh, opposant bay wuyoo Saleh Keb Zabo moom la ñu tabb premier euh, ministre ki amal décret bi nag di Mohamed Idriss Déby Itno ma xam ne fi mu nekk nii mooy jiite euh, réew ma te moom sax fi mu nekk nii kon dina jiite waat réew ma lu toll si ñaari at balaa ñu fay amal kon ay élection moom moomu leen di Keb euh, Zabo nag toll ci soixante quinze ans ancien journaliste la jot naa nekk itam ñeenti yoon candidat élection présidentielle foofule ca Tchad. réewu Mali nag euh, la nga xam ne moom mooy projet de nouvelle constitution maanaam ñu am constitution bu bees démb jëbal nañ ko nga xam ne moom mooy président de transition bi di Assimi Goïta boobule projet nag ñu am na lu toll ci cent quatre vingt quinze articles. boo koy xool sax euh, moom moo ëpp euh, projet bi nga xam euh, kon constitution bi ne fi nekk nii moo boobu cent vingt deux article la am te boobu nag mille neuf cent quatre-vingt-douze ba léegi moo nekk foofule ca Mali ñu ne nag constitution bu bees boobu nag dina indi ay coppite yu bëri ci li nga xam ne kon moom mooy constitution bi nga xam ne moom ñoo am fi mu nekk nii foofule ci réewum Mali. xibaaru bitim réew dañ koy tàmbaleeg Iran foofu nag ab ONG ñu koy woowee Iran Human Rights te nga xam ne mu nga nekk fële ci Oslo ci Norvège nee na nag eh, ci daal eh, télé yooyu nga xam ne kon ñu ngi tere ay manifestation yoo xam ne kon dafa am boobu ba toll ci weer gannaaw bi nga xamee ne as ndaw suñuy Massa Amini dafa faatu kon euh, gannaaw bi ñu ko tegee loxo di police des mœurs tegoon ko loxo boobu ba léegi nag ay nit jóg di manifester li nga xam ne it ñooy takk der ya jóg di jàmmarloo ñoom ñu ne nag ñu toll ci cent huit personnes jot nañ leen faat ci yooyu la manifestation ñi nga xam ne ñooy autorité dëkk ba nee nañ daal lu toll ci téeméer ci ay euh, yàqkat ématière ñoo xam ne daal ñeneen dañ doon manifester te di yàq teg nañ leen loxo dañ koy jeexal ak réewum états ñoom nag euh, fi mu nekk daal euh, dañoo daal euh, bëgg a wax ak ñi nga xam ne kon ay réew yi àdduna lañ ñu mën a ànd ci ab kon projet boo xam ne kon ab résolution boo xam ne fi mu nekk ñu ngi koy waxtaanee fële ca Nations Unies ngir daal mën a teg daal réewum Russie gannaaw bi nga xam ne nag ñoom dañoo bombardé teg ay loxo. ay euh, régions yoo xam ne kon mu ngi nekk foofu la ca Ukraine waxtu boobu nag projet boobu kon résolution boobu war tam war nañ koo amal bésu tey bi ci àllarba ji wala suba ci àll xemes ji li ñu leen tey ci xibaar am seen teewlu li ñu leen di àll bi